أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokk yi jullit yi mbokk seetaan seen émission bii di leerlu ngeen ci faral di ànd ak seen mbokk Oustaz Basirou Thioune maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaahi saydil wujud salawaatullahi wasalaamu alayhi di ñaan yàlla nangu ñu suñu koor te nangul leen di wax ne ñëw nañ tey ngir indil leen tafsiru baadul ayat min al quraanil karim seen tafsirul quraan li nga xam ne nag moom lañ bëgg leeralal comme ni ñu koy defee ci suñu tafaasir yi ren système bi ñu jël mooy ay aayaat la ñuy jël di ko tafsir nga xam ne dafa concerner société bi ngir lan fàttali ci ñu bari dimbali ci ñu bari tey nag ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a yee te mooy ay nit yoo xam ne dañoo bëgg a def lu baax mais xamuñu ñu bëgg leen di leeralal li nga xam ne moom la alquran wax ci seen jëf jooj nga xam ne ñu ngi koy jëf muy lan muy ndogu yi nga xam ne ñu ngi koy organiser te muy benn phénomène boo xam ne dafa xew ci réew mi nga xam ne ñu mel ni ki mbër yi xewal nañ ko musiciens yi xewal nañ ko ak nit ñu siiw ñi xewal nañ ko waaye nag lislaam bàyyiwul doomu aadama bi benn yoon lépp lu doomu aadama def rek alxuraan moo koy contrôler ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ñi nga xam ne suñuy jarbaat lañ di ay mbër ñi nga xam ne suñuy rakk lañ di ay mbër wala suñuy jarbaat di ay musiciens wala ñuy suñu rakk ñoom lañ bëgg a dimbale wax leen li alxuraan wax ci jëf ji nga xam ne moom la ñuy jëf incha allah euh, ñu ngi nuyu bu baax suñu caméraman bii di Mame Libasse mbokk yi xam ngeen ne suñu borom dafa wax ci alxuraan di encourager lool di soññi doomu aadama yi pour ñuy dimbalante seen diggante pour ñuy def lu baax di saraxe di joxe nit ñi ñam ñuy lekk di fajal nit ñi seen soxla fekk nit ku nekk ci ay jafe-jafe nga fexe ba teggil ko jafe-jafe yooyu loolu lislaam da ko encouragé lislaam dafa encouragé nit kuy dimbalaate nit kuy joxe ñam nit ñi di lekk nit kuy joxe ndox nit ñi di naan dafa encouragé bu baax a baax kuy jox nit ñi ndugu ndax kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne da nga dogal koo xam dafa wooroon suñu borom dana la jox tiyaabooy ju toll ni tiyaabooy aji woor jooja mu nekk lu am solo jëf ji moom kenn werantewul ne baax na mais jëfin bi mooy problème bi jëfin bi mooy problème bi loolu lañ leen bëgga a leeralal incha allah ndax borom bi dafa wax ci alquran ci suratul baqara aaya 261 di joxe misaalum ñi nga xam ne dañuy def lu baax jëmale ko ci yoonu yàlla te nit ñi nag bu ñu jaawalee ki def ci yoonu yàlla ak ki def ci doomu aadama yi ñaar yépp baax nañ def ci yoonu yàlla mooy procès yi nga xam ne lislaam moo ko moom lu mel ni ki jàkka yi jumaa yi daara alxuraan yi ak li nga xam ne dafa concerné mbirum lislaam nga xam ne diina ji moo ko soxla am na loo xam ne nag société bi moo ko soxla mooy nit ñi ñam ci seen biir ñoo ko yittewoo ñaar yépp lislaam dafa santaane doomu aadama yi di yëkkati seen wërsëg di ko ca dugal aaya bii nag commencement bi ñi muy waxat mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko def ci fi nga xam ne mooy yoonu lislaam def ko ci daara alxuraan yi def ko ci taalibe yi def ko ci jumaa yi ak ci jàkka yi mooy lépp luy dundal lislaam lépp luy dundal lislaam borom bi subhaanahu masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah mu ne su ma la doon jox misaal ci ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko dépenser ci yoonu yàlla yunfiquuna fi sabilillah di ko dépenser ci loo xam ne day dimbale lislaam ci loo xam ne ak topp yàlla la ka masali habatin anbata sab'a sanabila fii kulli sumbalatin mi atu xabba nee na misaal mi daal daa mel ni nit koo xam ne dafa jël benn pepp dugub suul ko ci biir suuf si bi mu ko suulee ci biir suuf si mu génne benn gàttax mu génne juróom-ñaari gattax kon gàttax bu nekk am téeméeri pepp muy juróom-ñaar téeméeri pepp muy 700 juróom-ñaar téeméeri pepp te xam ngeen ne pepp dugub sax dina ëpp téeméeri pepp benn gub ëpp na téeméeri pepp kon ku jël benn dërëm dépensé ko ci yoonu yàlla ku jël fukki dërëm dépensé ko ci yoonu yàlla juróom-ñaar téeméeri fukki dërëm ngay am bu dee benn junne juróom-ñaar téeméeri junne ngay am kon kenn werante wut ne jëf ju baax la mu ne wallaahu yudaa'ifu liman yashaa wallaahu waasi'un aliim yàlla neen nag waaye man may fulandi lu ma neex am na ñoo xam ne dina leen fulandi sax lu ëpp lool selon seen yéene nu seen yéene toll rek mu daal di leen fay fay gu toll noonu mu ne waaye nag loolu ngay jël di ko joxe ci yoon yàlla fexeel nag ba boo ko joxee ci yoon yàlla ba noppi bul te def lu ñuy wax al alman mooy maa def ci jàkk ji nàngam wala maa def ci jumaa ji nàngam wala maa fi def nàngam boo ko defee rek mu yàqu moo tax borom bi ne allazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ñi nga xam ne dañuy daj seen alal dépensé ko ci yoonu yàlla su ma laa yot bi na ma anfaqu man nan wala azan te li nga xam ne moom lañ dépensé ci yoonu yàlla nan duñ ci teg ay lor waaye duñ ci teg ay ñax mooy su duutoon ak man jàkk ji di pare su doxatoon ak man jàkk ji di am moket su taxatoon ak man porte yi nangam wala làmp yi wala courant bi loolu bul ko def wala azan bul ci lor nit mooy bul ko ci toroxal bul ko ci xas bul ko ci yedd yàlla ne ñi nga xam ne ñoo jëf-jëf ju baax ji ngir jëmm yàlla lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun ñu ñu daal am nañ seen pay te pay googu noonu suñu borom nee na duñ ci am lenn lu ñuy tiit waaye it buñ am lenn lu ñuy jàq ëllëg yawmal qiyaam mu ne qawlun maarufun wa maxfira xayrun min sadaqatin yutbiu al aza mu ne nag waaye wax nit ki wax ju jiw wax nit ki wax ju sell ju ànd ak yar ak teggiin moo gën nga def lu baax ba noppi teg ca ay lor waaw ayubal borom sikkal ko jox ko ba noppi naan ko nag danga war a dem liggéey dangaa war a góorgóorlu ji da war a fas jëm déedéet bu ko ci tegal loolu boo ko joxee rek nanga ko jox ngir yàlla te bàyyi ko. am na ñoo xam ne li ñu la defal wax la ko loolu nag ñi ci gën a bari mooy suñ mbokki jigéen yi ñu baal ñu baal ma bari na lu ñuy defal nit ci teraanga bi teraanga ker bu ñu la meree wax la ko ker boo ko waxee nag yàq na ker boo defalee nit teraanga. ba noppi ëlbatiku wax ko yiw wa dem na kon dangay def ngir jëmmi sunu borom subhaanahu moom mi nga xam ne bu ëllëgee moo lay fay wallaahu xaniyun xaliim yàlla mu ne man doylu naa ci seen jëf yépp ku lewet laa ci yéexee mbugal yi mooy su ngeen defee ngir man baax na su ngeen ma defee lu tam du dara ndeysaan borom bi subhaanahu wa di dénk jullit ñi di dénk jaam yàlla yi mu ne yaa ayyuhal lazina amanu ee ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla nekk ay jullit laatu tubbatiloo bu leen yàq mukk sadaqaatikum seeni sarax bil manni wal azaa waaw bu leen yàq seen lu baax li ngeen def ci ñax ak lor bu duutoon nag man doo tekki bu duutoon nag man doo am place bu duutoon nag man sa doom yi nàngam nit ki boo ko xasee defal lu baax ba noppi bàyyil moom la borom xam-xam bu mag di wax muy Seex Tijaan Bitey radiyallaahu anhu mu koy faral di wax lu bari ci ay waxtaanam mooy defal lu baax sànni ci géej gi dafa lu baax rek sànni ci géej ndeysaan maa ngi koy nuyu di ko ziar au passage nekkoon suñu kilifa ci rajo dunia bil manni wal asa këllazi yunfiqu maalahu riyaa annaas dégg fii nag moo tax ma ñëw mu ne day mel ni koo xam ne dafa jël alalam dépensé ko ngir ngistan kese wala yuminu billahi wal yawmil axiri gëmut yàlla gëmut yowmal qiyaam kon képp koo xam ne yaa ngi def lu baax bul ci jublu doomu aadama yi di ko gis na nga def ngir jëmmi sunu borom subhaanahu wa taala yunfiqu maalahu riyaa annaas wala yuminu billahi wal yawmil axir gëmut yàlla mooy gëmut pay ki nga xam ne moom la ko yàlla dikk ëllëg yowmal qiyaam moo tax mu bëgg nit ñi gis ko wal yawmil aaxiri borom bi ne su ma lay jox exemple misaal ci ñooñu ka mas fa masaluhu ka masali safwaan misaalam daal dafa mel ni ki ab aw xeer wu ratax alayhi turaabun beñ bi daal di ca lale fa asaabahu waabilun taw daal di fa jaar ñi mu koy effacé fa tarakuhu saldan mu bàyyi ko mu tarxes laa yaqdiruuna ala shay'in mimma kasabu lañu ñu fàggoon yëpp duñ ci mën dara ndax lan defuñ ko ngir jëmmi suñu borom kon nag ñi nga xam ne dañuy organiser ay ndogu publiquement publiquement am na lu ko gën ndax amul ci kenn koo xam ne xamoo ay doomu aadama yi nga xam ne li nga yor boo boo leen ko doon jox du mat wallaahi kenn ku nekk ci ñuy def ndogu yooyu public ak ci rue yi kenn ku nekk xam nga ay néew ji doole yoo xam ne mënoon nga leen ko ko jox mënoon nga leen koo jox ci sutura kenn du ko yëg yiw wa ëpp fa lool waaye il faut nga médiatiser ko télé yi ñëw sud yi ñëw yàlla nekkatu fa te balaa nga doon xam ne yàlla nekkatu fa ñu bañ koo génne ñu bañ koo filme bu ñu arrêté woon filmer yi di ko teg ñëpp di ko gis ñoom ñëpp ñu bàyyi yàlla xam na ko ak yëpp nag xew na ci ñi nga xam ne ñooy ay bërekat ñi nga xam ne ñooy ay musiciens ndeysaan ñuy bëgg a def lu baax te xamuñ yoon wuñ koy defee def lu baax yóbbu ko prison ñi nga xam ne ñetti kaso amuñ kenn ku leen dimbale bari na ci kaso yi bari na ci prison yi dem rëbës walla nga dem camp pénal Cap Manuel Sébikotane ay prisonniers yu fa nekk am na ñu fa gëm yàlla am na ñoo xam ne dañuy woor ngeen dimbale leen daara alxuraan yi ñuy jàng ngeen dimbale leen néew ji doole yi dëkk ci koñ yi mu wóorul ni kii nii amul dépense bu mat nga jox ko dépense weer koor gi yépp du am benn problème nga def ko ngir jëmmi sunu borom subhaanahu wa taala déglu leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu wax nee na axwafu ma axaafu aleykum ashirku al asxar li ma gën a ragal ci sama xeet wi ñu ne waa mu ne mooy bokkaale bu ndaw fa qiila wa ma huwa ya rasulullah ñu ne ko lan mooy shirkul asxar qaala arriyaau mu ne mooy ngistan ñu ne ko léegi nag ki ngistal lan mooy payam mu ne yaqulu llahu taala yowmal qi yowmal yu jaasil ibaad bu ëllëgee yowmal qiyaam bu yàlla di fay jaam ñi daf leen di daf leen di wax ne izhabu ila lazina kuntum turaunahum dem leen te ñi nga xam ne ñoom ngeen doon gistal seeni jëf yooya dem leen te ñooña ñu fay leen seeni jëf dem bi amalikum fansuru hal tajiduuna indahum jasaan ba xam ndax bu ngeen demee da ngeen fa fekk ku leen di fay wala déet jox nit ndogu baax na lool dimbale ci weeru koor yi baax na lool lislaam encouragé na ko waaye nag day fekk mu nekk xaalisan li wa ci laay te promotion lañ ci bëgg am na ci ñoo xam ne bu ñu leen déggatul bu weeru koor ñëwee dañ ci profité bañ dégg leen ñu wuti seen benn cent mille franc seen benn cinquante mil wax ko maam libaas wax ko diw wax ko diw kenn ku nekk participer ñu organiser benn ndogu ñu ñëw filmer ko ñu ne ah diw a ngi nii fekk na six mois kenn déggul la te nag nit lépp looy def day fekk nga man ko soo ko mënul nga def lu tolloog sa doole ndax sun borom daf ne fal yunfiq zu saxatin min saxati yi ki am wërsëg wu ne gàññ na joxe ngir jëmmi yàlla lu tolloog dooleem waaye nag ko mën alayhi rizquhu fal yunfiq mimma ataahu llah waaye nag ku yàlla ne sa wërsëg fii la yem jëlal lu tolloog sa wërsëg woowa la tolloog sa doole nga joxe ko ngir jëmmi yàlla ci sutura bu ko kenn yëg suñu borom fay la subhaanahu wa taala yonent wassalaam dafa am benn bis mu toog di jooy am libaas yonent bi alayhi salaatu wassalaam toog di jooy saxaaba yi ñëw fekk ko muy jooy salawaatullahi wasalaamu alayhi ñu ne ko maa yëpp kii ka yaa rasulallah mu ne inni taqawaftu ala ummati as dama tiit inni taxawaftu xalaa ummati dama ragal ci sama xeer wi ashirk amma innahum la yabuduna sanaman xam naa ne duñu jaamu xëram wala shamsan wala xamaran wala hajaran duñu jaamu jant bi duñu jaamu weer wi duñu jaamu ay xeer walakinnahum yuraawuuna bi amalihim waaye daal seen jëf lépp ngistan lay doon salawaatullahi wasalaamu alayhi kon mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax ci bu ñuy def lu baax ñu sóoraale ci payug àllaaxira ëllëg yowmal qiyaamati waaye su fekkee ne yow li ngay def lépp bëgg siiw moo tax nga di ko def ngir jëmmi yàlla eh, ci lu baax jël alal joxe maye joxi ndugu te fekk ni lépp pour bëgg rek nit ñi gis ko la kon ñu ngi bàyyiloo xel bu baax xam naa suñu rakk yooyu ak suñu jarbaat yi du ñàkk am ci ñoo xam ne dañ ci bàyyi xel même bu dee benn doomu aadama la mu xam ne li muy def na ko def ngir yàlla ndax am na ñoo xam ne am nañ doole mën nañ ko ñu ngi koy def ci sutura te kenn yëgut ko am na ñu bari bari ñoo xam ne ñu ngi jël ay teraanga di ko defal ay doomu aadama yoo xam ne ñoom ak kañ ko defal képp ñoo ko yëg loolu mooy def ngir yàlla ñaata nit la ñuy génn ci seen kër yi luyaas ngir ñàkk a mën a fay ñaata nit la ñuy couper courant ñaata nit la ñuy couper ndox hôpitaux yi boo ci demee ñaata nit ñoo am problème mu fay ay ordonnance wallaahi képp ku koy def di nga gis sa mbokk toog ci salon am naan pourtant li muy def nii de sama mbokk la te dimbalewul ma génn ci tele bi def ay teraanga batterie yi nga xam ne mooy am ci euh, soirée yi pourtant yaa ngi am say mbokk yoo xam ne yu la jege yu nekk ci ay difficulté yu nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay problème dimbalewoo leen ba noppi ëlbatiku dem di médiatiser yow say jëf ndax lan pour siiw rek ndax lan pour nit ñi gis ko bu ëllëgee doo ci am benn tiyaabo te am na juróom-ñaari nit ñoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na te zilluhumullahu fi zillihi yawma laa zilla ila zillahu nee na am na juróom-ñaari nit ñoo xam ne bu ëllëgee sunu borom dina leen keral bis bi nga xamante ne benn ker amul lu mooy keroog sunu borom muy kont juróom-ñaar ña ba yegsi ci kenn mu ne wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xatta laa taalam chimaaluhu maa sannahat yaminuhu mu ne ba nit koo xam ne dafa saraxe dafa joxe dimbale ngir yàlla nëbb ko ba nga xam ne loxo ndeyjoor bi xamul lan loxo càmmoñ bi xamul lan la ndeyjoor bi joxe nee na bokk la ci juróom-ñaar ñi nga xam ne bu ëllëgee te zilluhumullaahu fi zillihi yawma laa zilla illaa zilluhu pour pour encourager leen rek ñu jéem di def lu baax te di ko nëbbu yonent bi alayhi salaatu nee na inna sadaqata sirri tutfi u xadabu rabbi nee na ku saraxe te nëbb li ngay saraxe dafay fay merum suñu borom sànjum suñu borom ci jaam bi te amut benn doomu aadama boo xam ne mën naa wax ne man mucc naa ci suñu borom sànj ma am na ñoo xam ne seen tante yaa ngi ci ay jafe-jafe am na yoo xam ne seen rakki papa yi ñu ngi ci jafe-jafe am na ñoo xam ne seeni tonton ñu ngi ci ay jafe-jafe ñi seeni jarbaat ñu ngi ci ay jafe-jafe waaye waaye ngelle ñu dimbale leen ci weeru koor wi suñu borom fay leen ñaari yiw muy benn xeer bu jàpp bu bu rey ñaari picc muy dimbale nga sa mbokk waaye itim dimbale nga doomu aadama bu nekk ci ay jafe-jafe nga teggil ko jafe-jafe yooyu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na man tasaddaqa bi adli tamrati min tiibin képp koo xam ne nii dafa saraxe lu tolloog benn kopp tàndarma waaye nag mu jege ci alal joo xam ne ju teey la alal joo xam ne ju dagan la ndax kat walaa yaqbalu llaahu at yàlla nee na soxluhuma lu teeyul fa inna allaha yaxusuhu bi yaminihi yurabbiha yu yurabbi ahadukum faluwuhu atta tukkoon misla jabalin mu ne sunu borom daf koy jël ci ndeyjooram ci waxin di la ko yaral comme ni ngay yaree sa moolu fas ci sa wudd bi ba mu nekk ponkal sunu borom noonu lay jëlee sarax boobu di la ko yaral ba mu toll ni ab montagne bu ëllëg yomal xiyaam boo ñëwee ñu fay la ko mbokk yi kon nag lii ñu bari war nañ koy xam ci def li ñuy def lu baax ñu ngi ñaanal nag di encourager bu baax ñi nga xam ne dañuy dimbale jaami yàlla yi ngir jëmmi yàlla ñi nga xam ne nag ñoom dañuy def ngir gis ñu ngi ñaan yàlla génne leen jubbanti leen orienté leen bala ñuy def ñu koy def ngir jëmmi yàlla ndax lislaam encouragé bi nga xam ne mu ngi koy encouragé ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi pour ñuy dimbalaate moo tax borom bi nii ne wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yuxlifu wa huwa xayru raasiqin nee na lépp lu ngeen dépensé dinaa leen ko remplacer maanaam doomu aadama lépp lu mu am di ci dimbale ay jaami yàlla mu mënti toll bu dimbale woon doomu adama yi mu gën a yokk bu fekkee da nga am lu tuuti booy dimbalaate day yokk boo amee lu bari booy dimbalaate muy gën di yokk moo tax ñu ngi ndokkeel di félicité bu baax Abdoulaye Dia ci initiative bi nga xam ne ni jël na ko ci alquran ba tax xale yi bëree bari bari di mokkal alquran sëriñ daaru yi bëree bari di def ay effort ngir lan njaboot gi mokkal alquran ñu ngi félicité bu baax a baax ndeysaan Mahi mi nga xam ne moo jël raay bi tey ren. dëkk jóge Kaolack mais macha allah ñuy ndokkelaale waa kër Cheikh islaam Islam Baye Niass mi nga xam ne tey moom lañ ko parrainé woon ah, heureusement ki dëkk Kaolack gañewaat prix bi mbokk yi déglu leen borom bi subhanahu wa li mu waxaat nee na wa ma tunfiqu min xayrin fa li anfusikum mu ne lépp lu ngeen joxe ci lu baax yéen a moom yiw wa lépp lu ngeen def ci lu baax yéen moom yiw wa wa ma tunfiqu illa ibtiqaa wajhillah waaye nag bu leen joxe dara bu leen dépensé dara lu mooy ngeen cee sàkku jëmmi yàlla ji képp waaw lu mooy ngeen cee jëmmi yàlla ji képp waaye su fekkee da ngay def ngir nit ñi dégg la lu ñuy wax assumaa nga xam ne laxdar yi sax da koo tere téere bi ñuy njëkk jàng ci droit islamique dafa tere gis dafa tere ndéggatu dafa tere waj bu mooy yéem sa bopp naw say jëf muy ci xam-xam muy ci def lu baax muy ci jaamu yàlla wa ma tunfiqu ila ibtiqaa wajhillah bu leen joxee dara bu leen dépenser dara bu leen may kenn lu may ngeen ci sàkku jëmmi borom bi subhanahu wa taala ndax wa ma tunfiqu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun borom bi nee na lépp lu ngeen def ci lu baax dinaa leen ko fay ba mu mat sëkk du ma tooñ kenn waaw kon lu fi jar ngis tën bi ëllëg yawmal qiyaam ñetti nit lañuy njëkk atte muy ki doon jihaat ci yoonu yàlla muy borom xam-xam muy borom alal ñett ñi lañuy njëkk a jugé ëllëg yawmal qiyaam xam naa fi li ñuy jeexale sunu waxtaan incha allah ñu ne ki ñu njëkk a mooy ki doon jihaat ci yoonu yàlla mu xeex di wane njàmbaar ba ñu faat ko bu ëllëgee suñu borom bu ko taxawalee ci kanamam ne ko yow joxoon naa la kattan ak doole ak fit ak njàmbaar loo ci liggéeyal mu ne ko yàlla mu ne ah, mu ne ko xeex naa ba dee ci yoonu yàlla mu ne ko kazabta nar nga waxoo dëgg dangaa bëggoon ñu ne ku jàmbaar nga wax nañ ko ci àdduna mu naa mu ne ko jeexam na loolu mooy sa fay demal taxawee ne sa mooy safara ëllëg mu des ñaareel bi muy baram xam-xam muy ñun ñi nga xam ne ñun lañ koy tuddee donte amul xam-xam yàlla nañu yàlla may ñuy def ngir jëmmi yàlla ndax mucc ci ngistan ak ndégg te lu jafe-jafe la mu ne borom xam-xam bi dañ koy wax ne ko waaw yow suñu borom ne ko mayoon naa la xam-xam ca àdduna loo ci def mu ne ko yàlla jaamu naa la ci julli naa ci guddi waaree naa ci yee naa ci ay nit suñu borom ne ko yow ustaas bi yow borom xam-xam bi yow borom alxuraan kazabta nar nga waxoo dëgg dangaa bëggoon ñu ne borom xam-xam nga wax nañ ko ca àdduna jeex na mu des ñetteel bi muy borom alal suñu borom ne ko mu ñëw taxaw mu ne ko yow alal ji ma la joxoon ca àdduna loo ci def ci lu baax mu ne ko fu ñu wooteelee sa yoon wii muy lislaam bu naa ah, mu ne ko dépensé naa ci def naa ci jàkka ji def naa ci jumaa ji def naa fii def naa fii dimbale naa ay nit dimbale naa samay mbokk wax ba mu jeex mais ñooñ ñëpp ndekke li ñu doon jëf yëpp yàlla suñu borom taxutoon suñu borom ne ko kazabta waxu dëgg li nga wax dara ci amut danga bëggoon ñu ne ku tabe nga wax nañ ko jeex na amuloo ci génn fay tey moo tax mbokk yi ñu ngi ñaan yàlla suñu bopp di ci jiital ñu ngi ñaan yàlla suñu borom di ci jiital suñu bopp yal na yàlla may ñu xol yoo xam ne xol yu sell la lépp lu ñuy def ñu koy def ngir jëmm yàlla suñu borom subhaanahu wa yàlla dimbali ñu ndax ci xéewal yi euh, ndeysaan bari na koo xam ne tey mu ngi kontaan yaakaar ne lim def ci lu baax bari na waaye fekk ne bu ëllëgee yawmal qiyaam habaan mansuuraan ma tëje ko ak benn hadis bu dangereux nag yontu bi alayhi salaatu wasalaam daf ne doomu aadama yépp xalaku nañ ñépp tiit mu ne illal aalimuuna lu mooy boroom xam-xam yi ñu ne alhamdulillah boroom xam-xam yi ne alhamdulillah mu ne wala aalimuuna kulluhum halka borom xam-xam yépp xalaku nañ ñu ne eh, mu ne ilal aami lii na ba mooy ñuy jëfee lañ ñu ne ñooñu ne alhamdulilah indi ñu mu ne wala aami lii na kulluhum halka ñi doon jëfe seen xam-xam ñoom ñëpp alaku nañ ñu tiitaat mu ne sii na ba mooy ñu doon sellal ñu ne alhamdulilah mu ne wal muxli suuna ala qatarin azim waaye nag ñi nga xam ne ñoo doon sellal ñu ngi ci danse waaw ñu ngi si danse ndax suñu borom subhaanahu wa taala daf ne man jaa bil hasanati fa lahu am amsaaliha koo xam ne ñëw nga yowmal qiyaam indi xaale lu baax am nga fukki yiw waaye nag luy problème bi mooy man jaa ala wax ku ñëw ba indi xaale ko ndax kat wax naa ko ci tafsir bi mooy ne nit mën naa def lu baax mais conserver ko denc ko garder ko ba du yàqu iblis du ko jël seytaane du ko yàq ngistan du ko yàq ndéggatu du ko yàq ba nga mën a denc lu baax loolu ba yóbbu xaale ko yomal xiyaam ne ko yàlla lii laa defan ci lu baax loolu mooy problème bi yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu mën koo ja'alanallahu min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu wa salaamu aleykum wa rahmatullah jërë jëf